salaamaaleykum amis téléspectateurs et internautes de Leral TV et de Leral point net amati nañu mbégte ak contentement solaat suñu daal dugg ci biir euh, gox yi def suñu grand reportage du jour euh, tey nag dañoo wàcce ñëw fi nga xamante ni rek moo di Yoff Tongoor ci quai bi ñëw nag waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo fi mëne seen activité ginnaaw bi nga xamante ni rek dañoo euh, ginnaaw bi nga xamante ni rek fële ca Caaroy am na seenub mbokk mool ñoo xamante ni ñu ngi dund ci ay jafe-jafe ci seenub wér-gi-yaram li ko waral di produit toxique ñu ni moom la ñu nemmeeku ci biir géej gi loolee nag moo waral ñu daal di ñëw doxantu ngir tendre leen suñu micro kenn ku ci nekk jox sa jàngat euh, ana naka lay dundee situation bi ak it ban jàngat la def ci situation boobule da ngeen ñuy topp rek ñu digtal leen suñu grand reportage. dafa am loo xamante ni dafa xew si moment bii ñu toll laal ay mool lenn si ay mool duñ na mool yëpp parce que boo xoolee feebar bi mu ngi diggante caara yi muy ay mool yoo xam ne dañ doon dem géej am ay nit ñoo xam ne dañ doon sangu ci géej gi. ba yàlla def tey ñu trouver si benn feebar boo xamante ne ay feebar la boo xamante ay béton muy am si yaram yi ñi en plus en même temps seen ay yaram di xar seen ay kanam am ay picc ba si seen ay awraak si seen gémmañ ak yu mel noonu mu nekk phénomène bu doy waar boo xamante ne vraiment euh, laal na ay mool yu bari ay dem ci géej yu bari yoo xamante ne li ñu mu ñu nekk si li nga xamante ne mooy euh, camp wu Thiaroye ak euh, hôpitalu Thiaroye vraiment ëpp na limite daal. réduit boobu ñu sotti si géej gi boo ko seetee période bu nekk ah, pêcheurs yi ax i ñuy aw période bi pêcheurs yëpp a ngi aw tànk barka démb dañ toog fii si alage bi ñu ne suñu ministre mu nga hôpitalu Thiaroye ñu ne lu xew moom mu daal ñu ko expliquer parce que période bi saison bi pêcherie yëf yëpp dañu aw tànk parce que fa la ba nekk ngoon na produit chimique boobu buñ ko versé si géej gi yàq na lu bëree bare bare bare bëri mareyeur ak euh, fu mu mën a nekk fu nekk bu amee problème yi dangay am problème ndax ñun ñëpp benn leen euh, caarowee fu ne daal ñu ak yoof yëpp benn leen ndax biiru bokk leen ñoom ñooy uti li tax ñun ñuy am kon ñooñ bu ñu amee problème dañ koy yëg parce que boo xoolee waa ji waxoon na benn nombre ay quatre-vingt-quatre personnes mais ci diggante ci guddi gi ak bi asamaan sete amaan nañ yeneen quarante personnes yoo xamante ni dollu ko waan nañ fa euh, si li ñu noteegul am na ñoo xamante ni ñu ngi seen i biir kër génn guñu mais daal pour l'instant lii nga xamante ne am na caare yu doy na waar torop torop torop parce que produit chimique bu ñu ko ci wëse si géej gi mun na rey jën yi te le gaal bu fa nekk di nga am loraange ngoon nag ñun pêcheurs yi commencé nañu jaaxle te diggante yoof ba tubaab jalaaw léegi yéen ban njàngat ngeen am ci produit biñ ni benn bato moo ko fi waa xam nga tey problème mu bato moom dafa xew lu am lu ne rek ñu ne problème mu bato ndax riirum bato moo bëri fi tool nii bato yi dañoo jaay géej gi dañoo def lii wóoruma daal mais daal en tout cas lu ci mën a xew daal mooy ne maa ngi koy dégg ñu naan ci bato yi la ba ak lu mën a xew daal neen déglu état bi sàmmanteeg sart voilà li nga xamante ni moo koy joxe ñu moytu ko li nga xamante moo koy saafaral ñu respecté ko. xëy na peut-être si état bi ñoo def ko ndax tey jii moom ab bato bu jógee feneen ñëw dina ñëw ba géej gi naan dafay sotti produit chimique kay moom loolu noonu kay moom du si ñun si état bi la ñoom ñoo desee desee comment euh, Euh, waa ñoo de dese vigilante quoi am sécurité ndax suñu géej ma premièrement amul amul sécurité ndax dañuy dëkk comme ñoom n'importe euh, ñaata gaal ñaata bateau ñooyu nekk si biir géej gi ñoo xam te ne moom koy moom chaque instant da ngay pour pour boo demee pour mbaali boo demee mbaali est-ce que moom lu nga gis ay naax ay ay naax euh, bateau kay du xaaj bay jee est-ce moom des fois dem ba à la fu nga xam te ne sa place place bu nga war a mbaalee bu nga war a mbaalee ay bato nga fay fekk est-ce moom bateau nga fay fekk te bateau yooyu nag toujours tam boo xam ne boo xoolee bateau yi da nga xam ne bateau yi moom fii la léegi yëpp di nappe ngoon nag lépp luy commencé nañu am jafe-jafe presque boo ko seetee tey jii man léegi laa ñëw ay deux heures ma vérifier samay gaal mais ñu bari tënguñu fii tey jii say suyoof di ngeex produit chimique boobu ñu versé si tànk da ngay da ngay si benn xam te ne day taxaw benn day taxaw lu toll 24 heures si def si benn bi am na bateau bi am na am na lu am na lu am na lu mu def ko bàyyi foofu kay moom mais loolu noonu kay moom funtu kay moom kantaan ñun ñun ñu xam te ñu bi rek moo mun a a xam bateau yi si géej gi kay affaire bi dafa yam diggante caaray caaray la yam eggul ba mbuur pour l'instant ba bi ñuy am kii eggul woon mbuur kon damay jàpp kon bu fekkee ne bato daf ko sotti ndawam tànk la doon mu andi ko fi nga xamante ne mooy booru booru caaray ak zone yi mel noonu parce que am na beneen mool boo xamante ne wax na ne ndar la ñu tëmbe woon ñëw caaray ñaari fan lañ si lañ napp feebar bi attaqué leen kon dañuy jàpp ba tey ndox mi nga xamante ne moo nekk diggante pooram ndakaaru ba jëm côté côté Thiaré jëm boor boobu lépp lu am muy produit chimique ñu sotti ko si géej gi si diggante boobu la yamagul pour l'instant parce que à l'heure actuelle fi ma lay wax ni ñu nekk si quai de pêche Yoff giseguñu fi noteeguñu fi benn cas boo xamante ni xalaat nañ ne mool bi ndox moomu mooy li nga xamante ne mooy li ko jàpp. am nañ si daxar lool am si tiitaange parce que Lebu napp xam parce que loolu lañ fi fekk suñuy maam di ko def. suñuy góor tamit képp koo xamante ne kii rek juddu nga si lebu yaa yaa ngi si géej gi napp nga xam am na ñuy mbaal fila tourné plongeur yëpp ngi si biir ngoon nag su loolu ñëwee ñun lebu jaaxle nañu. bien sûr jural nañu jafe jural jafe ndax fu mu toll ne euh, ñu ne feebar bi mu ngi fii euh, yaraax xam nga yaraax diggante yaraax ak fii moo sorantoon ca yaraax ak caaro sorant sorantoñu ndax bu ñu ko dëggee yaraax wala ñu dëgg ko caaroy nga xam ne ko yàgg yàgg moo koy ñaanuñ ko yàlla yàgg yàgg dina egg si fii nii caaroy la yam eggul ba mbuur pour l'instant ba bi ñuy am kii eggul woon mbuur kon damay jàpp ne kon bu fekkee ne bato gi daf ko sorti ndawam tànkala la doon mu andi ko fi nga xamante ne mooy booru booru caaroy ak zone yi mel noonu napp mooy suñu aada te bu egsee fii ma ko ndax day law ñun da ngay gis que ñun ay gaal lañ jógee fii ni dem Caaroy wala dem kii ma wala gaal gaal jógee Caaroy fii est-ce que te loolu yëpp que mun indi mun na indi bu dee feebar boo xam te ne xam ñu ndax ñu muy def est-ce que ko est-ce que moom kay ma ak fii daal ñun daal lu ñuy def kay mooy que xanaa ñoom feebar bi euh, ñi nga xam ne feebar bi dal leen rek ñu jéem leen xoolu kay moom ñu jéem leen xool jàppale leen jàppale leen affaire bi feebar mun na bañ egg si fii ni suñu fi ginnaaw feebar eggagoon fi ñu ne li may sàkku daal di ko ñaan mooy gouvernement bi de seen kéntelaayu kàntan vérifier ba te yooyu nekk si biir code bi di verser ay produits chimiques parce que Sénégal loolu xaju fi ñun pêche lañ xam a agriculture ngoon nag bu ñu jëlee si wàllu pêche di jël ay produits chimiques di ko verser si géej gi ngoon Sénégal am nañu tiitaange te jaxle nañu. boo gisee jën wu sew yi gaal yi di ko napp fii gaal yi dañu gisatul dara loo xam ne lii moom la ñu mën a napp ba jariñu si ndax boo xoolee géeju yoof bon ay jamono jën dafa bari woon bari goo xam ne gii da nga daan taxaw si tefes gi fii sax di jàpp jën loo soxla da ko doon am fii mais maintenant mënoo fi gis jën bon noor a ngi débuté dem ba toll fii mënoo gis jën sax woo napp bon jënu sew yi gars yi napp sax gars yi dañ siy kereyel mool yi mais xam nga ñàkk a pexe daal moo tax mooli di ko fi teeral ndax ñoom amatuñu pexe amatuñu solution bon ñuy ñaan dëkk état bu ñu mënee dimbali mu jàppale rek te yàlla tax te mu xam ne ñun ay citoyen lañ si dëkk bi la dëkk Sénégal gi la ñu dëkk ay sénégalais lañ mu dimbali ñu rek jàppaleñu si géej gi defaraatal ñu géej gi ma ba ñu mën see jariñu ndax géej boo xoolee géej dafa yaatu bon bu ñu nekk 14000 d' habitants Sénégal fii man nga ne 8000 8000 d'habitants yi géej gi la ñu yaakaar parce que liggéeyu géej li tax ma ne dafa yaatu pêcheur bi moo si jiitu nga ñëw si tefes gi mareyeur bi mu ngi fi bon nga yéeg si kaw tey quai bi employé yi si quai bi moom la ñu yaakaar écailleur yi toog fii di waas nii ñoom moom loolu loolu la ñu yaakaar donc géej li si ginnaawam dafa ko yaatu yaatu goo xam ne gi bu état xoolee rek war na mën a jàppale mool yi waaw mu jàppale leen daal bu leen jàppale rek jàppale na Sénégal parce que géej gi mooy Sénégal. mais tamit ñuy na ñuy napp euh, yoosi te dañ koy tere ndax tamit du am daan boo xamante ni teg nañ dinañ leen ko teg seen kaw. waa ñun ñu ngi ñuy teg ay daan mais xam nga boo gisee mooy li ma la wax rek ñu di ko mbaal métti métti bi rek moo ñu poussé à ce ñu di ko mbaal dafa métti géej gi moo amatul dara contrat bato yi dafa bëri. xam nga géej gi amatul jën daal amatul jën te da doon dem gi géej jàpp jën yu baax doo xalaat sax di mbaal jën wu sew mais bu buñu demee tey ba di ko mbaal amatuñu pexe ñuy ñaan rek nañu état dimbali daal defaraatal ñu géej gi rek ñun loolu rek la ñuy sàkku si état bi euh, nit yi dañuy yeex a remarqué loolu ndaxte ñun depuis le 12 ñu ngi alerté autorité sénégalaise le 12 laa la wax tey ça fait 4 dañ ko seetlu à Mbour seetluwaat ko à Joal seetlu ko dëkk bu naan Ndayane ñu dugal ko si suñu benn groupe WhatsApp boo xamante ne ñun ñëpp a ko bokk mu tudd la voix du littoral ñu wax ne am na phénomène bu bees bu ñu commencé seetlu si géej gi il faut que gars yi teel si jokk xool lan la malheureusement nag mu jekki rek def buzz def boom barki démb ñu gën ko seetloo caaroy géej démb aussi ñu seetlu ko tëngeej en masse ba gars yi ñu évacuer leen yóbbu leen stade tëngeej ñu nag jàngat bi ñu si am mooy dafa nekk lu bees te lu bees bu dalee suñu kaw dañuy dal dañuy tey ñun d'abord ñu jéem a xool analyser lan la démb ñu ngi doon wax ne bu kenn tëmb mais man dama ne dinaa dem géej ma seetlu parce que aussi da ngay boo nekkee responsable da ngay nekk cobaye li tax ma jéem jéngu nekk cobaye mënoon naa bañ a dugg si géej gi plongé ji mais maa dem ba si fond marin bi jogaat pour xool réellement ndax man mi dina ma dal bu ma dalee aussi ma alerté waa Yoff ne leen attention affaire bi mu ngi Yoff parce que affaire bi ñu ngi ko constaté sur l'axe sud l'axe sud mooy de Thiaroye jusqu'à Joal Fadiouth donc puisque amul sur l'axe nord gisaguñ ko fi woon bokk loolu moo tax tey comme Yoff laa dëkk et que vraiment mool la ma ne naa bokk ci ñi nga xamante ne dañuy dem tey xool yi bu fekkee am na dinañ xam bu amul dinañ xam njàngat boobu lañ ci am pour l'instant léegi nag ñu ngi si dégg ay version yu uute ah ñii ñu ngi wax naan tubaab yee ko sotti si géej gi ñii ñu ngi wax ne dañ ko sotti si géej gi pour bañ xale yi dem immigration clandestine mais yàlla xam na yàlla xam ndaxte ñun xamuñu exactement lan la mais lenn la ñuy wax nañuy alerte autorité bi pour que ñu def analyse yu sérieux analyse nañ ko def de façon très ñu xool lan la ndax dafa nekk produit boo nga xamante ne mën na nekk sax une déformation naturelle boo xamante ne à partir du des algues du fond marin maanaam yu nëpp décomposé wu wala yooyu on sait pas on n'est pas des scientifiques mais daal nañ wax état du Sénégal nañu jàngal lii lu mu doon bu ko jàngee ba mu bañ xam lu mu doon bu fekkee ne nag lu nit def volontairement la ñun pêcheurs du Sénégal ce qu'on demandera mooy nañ si def enquête bu leer nañ si def enquête bu leer parce que aussi terroir bi ñuy dugg di uti ku si sotti loo xamante ne c'est un danger boo xamante ne mën nañu guettee vraiment ñun dañuy demander à l'état du Sénégal mu dem si ba jeex tak mu dem si ba jeex tak dans la mesure ay nit lañ ay citoyens sénégalais lañ dëkk ci dëkk bi di fay li nit yi di fay donc c'est ça c'est juste pour euh, tënk ko bañ ko guddal trop moo tax may waxee noonu may waxee di wax ne état du Sénégal ce qu'on ñu analyser ndox bi def ay prélèvement échantillon de Thiaroye à Joal Fadiouth comme zone boobu lañ ko constaté mu bañ a épargner la zone ouest aussi mu ñëw Almadies ba Saint-Louis def ay prélèvement ñu xool ndax affaire bi c'est sur tout sur toute la côte ou bien dafa fenn fu mu nekk juste avant que danger bi di gën a law si réew mi. mu ngook li moo nekkoon suñu grand reportage ñu doon ko amal fii ci Yoff Tongoor gis nañu kenn ku nekk nag yëkkati nga yëy ci yàbbi ci problème bi nga xamante ni moom moo euh, tëru jamono ji kenn ku ci nekk bu ñuy nee ni euh, bato yi ñoom ñoo fi tuur ay produits toxiques ba yàq yaramu mool yooyu am na naka ñi nga xamante ni jàngat bi ñoo def moo di nañu jéem a dugg ci biir euh, géej gi xool ndax nekkul ni ay produits wala ndax nekkul ni ay algues ñoo dem ba daal di nëpp indi jafe-jafe yooyee nag lu ci mënta doon ñoom ñëpp nag ñu ngi àndandoo di sàkku ci ki nga xamante ni rek moo di njiital réew mi moom ak gouvernement am ñu daal di def ci ay analyse taxaw seetlu ba trouver solution ci li nga xamante ni mooy phénomène bi tëru jamono ji lii nag moo nekkoon grand reportage bi ma àndoon ceek sama caméraman Aliou Cissé di leen joxe dig daje ëllëg incha allah ci beneen gox waaye tamit ci beneen sujet jërë ngeen jëf